mu nga noonu taxaw gardé na distance am fi tol ni ni nii macha allah ndaysaan lewtoo bi soro na waaye tôt tard dinañ daje mbay dinañ ñaar boy sila dasa boy sila dasa ndaysan ah boy sila dafa gardé distance da di taxaw ay ci nga xamante ni boy sila daal na ne distance am taxaw daasa daal di taxaw moom itam làmb ji rang d'observation la ñuy def waaye san rang d'observation la ñuy def waaye doo taa dinañ daje dox dox ay fi jot a jàll li def moom gaaw na uh-huh. waaye bii nag daa mel ni moo nar a guddee bii moo nar a guddee parce que boo xoolee ki nga xamante ne mooy Boy Sylla moom dafa arrière fu mu toll nii pour jàng ki nga xamante mooy adversaire am nga xamante ni mooy daasa waaye daasa fi mu toll mu ngi def pas par pas pour nga xamante ni mooy mooy Sila mais dinañ daje ñoom ñaar dinañu daje tôt ou tard dinañ daje gis ngeen ko ñoom ñaar kenn ku def boo jiwaat nga fekk. dinañ daje léegi léegi diggante daasa ak Boy Sila. Sénégal daan na Dansa Jolof moom da kaa bàyyi mu sëte droit Sénégal daan na Dansa daan na ko jël bu rëy wécc bana oh oh Dansa Dansa bul bàyyi Dansa bul bàyyi bul bàyyi lamb ji kenn moomu ko papa yi kenn moomu ko yaay kenn moomu allah di nga nee ah nee na bàyyi na waaye mbër la <laughs> doo taa dina ñëwaat macha allah.